je parle de votre coalition tendance bi mooy tey bu yéen ñëpp seen candidature yëpp boo leen demoon élection Ousmane Sonko moo leen di raw. c'est la vérité électorale attendez c'est-à-dire si c'est la décision de l'électorat et peut-être que loolu arrangé wul ñenn ñi. non c'est-à-dire xam nga lu may bañ. mooy man sa position bi ma lay indil tey su ma duggee ci débat boobu mon discours ne sera pas compris je ne suis pas dans un discours égoïste je suis dans un discours stratégique je suis en train de dire. man li ma jàppoon ne c'était la voie pour que ñu sauver toutes les candidatures yu nekk au niveau de Yewwi Askan Wi je dis bu fekkante ne nii dafay def calcul en se disant oui maintenant aujourd'hui je peux faire telle chose parce que simplement dina tax man ma ma xañ la la nee boo dee da nga koy def d'abord premièrement tu n'es pas sûr que d'abord kooku yaay nekk candidat c'est la première chose la deuxième chose même bu nekkul candidat tu n'es pas sûr que tout le monde va reporter ay voix am ci yow bu fekkante da ngaa dama su nekkul dama koy jël nga bëgg ko un coup pour loolu xamal ne en réalité le la décision finale sa se joue au deuxième tour nekk pire taxut a gagné sa élection bi ñu jëm ni nekk pi taxut a gagné nekk pire arbitrage rek électeurs yi au premier tour la deuxième tour ki ëpp capacité capter électorat créer une coalition autour de toi kooku moom mooy moom mooy moom mooy gagné élection yi maintenant non seulement il faut être capable de créer coalition autour de toi mais il faut aussi créer des conditions waaw mais il faut aussi si Ousmane Sonko sortait premier ñëppay langaamu <laughs> ñëppay langaamu amul kenn langaamu et deuxième tour bu amee dans le contexte sénégalais aujourd'hui le le le le le le si c'est Macky Sall mais la même chose que moi. voilà ñëpp la gàmmu c'est la non c'est ça woon di def loo xamante ne pour mën a éliminer Ousmane Sonko je dis loolu mënu nit mënu ko calculer parce que boo ko calculer aujourd'hui si tu crées benn situation de sentiment de dépit wala nga créer en fait les conditions d'un dialogue yéen nga créer benn instant boo xam opposition bi lay tourner le dos électorat lay tourner le suba même boo jàllee enthousiasme dee da am ñoom dañ naan duñu woteel adversaire bi ils vont préférer